jamono jii file ci dëkk bu sell bii di Touba te lee xalaat yëpp dem ci la ko Touba kàddu yi nga xam ne Mary Teuw jotoon na ko yëkkati murid yi yeewoo ci dëkk bile ñoom itam am na xalaat buñ ci amee ñëpp ci ñoom bu dee lu jëm ci màggalu ko Touba gi ku ci nekk am na taxawaay goo xam ne war na ci amee sëriñ bi moom jàpp na ne donte mbas mi am na ci réewum Sénégal ak tolluwaay gi waaye itam terewul taxawaay gu am solo goo xam ne wax nañ ko amal. màggal am nañ ci yaakaar ne. Euh, buñ ci duggee ci bisimilah rahmaani rahiim gi lañ ci duggee ci alhamdulilah rabil alamin ci la ñuy génnee. comme mu taw feexee rek comme ni ñu ko doon xalaatee waaye nag bu fekkente tamit dafa nar a indi ay ay kii ah kon tamit ñu ñu defee ko comme yéen dañ defee yeneen màggal yi rek ndax jàmm moo gën lépp waaw ñu ngi ñaan nag ci kàttanu yàlla ñu def ko ci defin boo xamante ne nii ñu koy def te dara du am coow du am kii du am bii du am loolu daal ñu ngi koy siy xalaat moom. màggal gi moom bu ñu sañoon di su ko fomm ndax amuñu lu dul sëñ Tuubaa kon sëñ Touba la ñu am nag sëñ Touba moom lépp loo xamante ne fii mooy lu koy lu koy bégal rek ñun bu ñu sañoon maanaam ci loolu rek la ñuy dox. bu ñu sañoon màggal ak sëñ Bamba moom wax dëgg yàlla bu ñu sañoon moom taalube eh, màggale ko noonu ko doon màggale rek wax dëgg yàlla. gannaaw kàddoom itam sëriñ bi moom ay kàddoom jàpp ne kàdd yi nga xam ne yëkkati na ko loolee kàdd yu njumte la jamono ji ñi nga xam ne ñoo di murit benn kàddu rek la ñuy déglu muy yu ko xalif général des mourides Muntaxa Bachiru Mbàkke am na droit wax ndax nit la daal. ku nekk am nga avis wax lu la neex euh, nit ñi ñëpp bokkuñu yam kon ñun ay mbir lañu moom xëy position looloo xalaatam la fii feebar bi toll Covid 19. mu gis na luy lor la àdduna mu jàpp na rassemblement day lor comme rassemblement day lor te mu ja moom position am la wax daal waaye ñun en tant que murit te dëkk Touba suñu euh, suñu xalaat lépp mooy ndigalu sëriñ bi daal lu mu wax waaw bu xëy déet. waaw ñun ñoo ngi koy waajal waaye nag ñun ndigal rek lañ koy kiiyee ñoo sëriñ bi rek. ñoom lu ñu lu ñu lu ñu xalaat lu ñu wax rek ñu ñëw ngi seen ginnaaw loolu la ñuy doxalee. Màggal Tuubaa moom maanaam dépendrul ci mérito ñaan dépendrul ci kurul moom kurul Serigne Serigne Touba la dépendre Serigne Touba si mu tax moo fi moo moo fi Serigne Touba lépp lu mu ci moom la ñuy def te it lu keneen di wax ñun faale wuñ ko déglu wuñ ko li suñu mu taxaw mu taxaw daal la wax. ñeneen ñi itam jàpp ci ñeneen ñoo xam ne la leen tax a jóg moo di xajamal waaye loole du mas a sotti. ah waa man de sama gis-gis noonu la. parce que moom màggal waa moom dépendrewul ci moom ñim dépendre na ko bàyyee ak ñoom suñ mun taxal dépendre moom moo koy décider boppam lam ci wax moom la ñëpp yi def waaye moom tuuti na ci wax waa Mbadéet. yar sax la ñuy waaje booy jóg di dem doone da ngay sol rek sol sa rafet taxaw di mbel-mbel yi déedéet da ngay yaru ab yar la ni waaje loo jag-jag te kat yaru woo bukkee la gën fopp loo rëy rey ko bon ko ko sew. ak lu mën a xew donte des na ay ayu bés waaye terewul murid yi ku ci nekk itam ña ngay déglu li nga xam ne moom moo di ndigalul xalif général des mourides màggaluk Touba gii nag nga xam ne bi ne moom Cheikhul Khadim moo ko santaane woon ne nañ ko ko defal santale ko ci yàlla tey ak ëllëg képp koo xam ni kii na jóg nga ngir gàllankoor ko doo ko fekkee ak koo mën a doon nag waaw ak koo mën a doon koo xam ne kii ne fës nga yéenee jóg gàllankoor màggalu sëñ Tuubaa gii góoma nga fekke ko de waaw ndax sëñ Tuubaa defaru mag gone du ko yàq